ndaw soo xamante si nii. Mhm. barki dee njaay damaa woo. Mhm. di ma sant. ndax lan juróomi weer a ngi nii. Mhm. cinq mois yoo xamante si nii. jëkkëram da kaa wan ginnaaw mu si uti ñaan. ñaan na sëriñ bu ne dem na ca. la ilaha illallah. bi ñëwee man. bi mu ko defalee. damaa damaa woo paas ma borom këram. la ilaha illallah. ah loolu nag ma si sant yàlla. allahu akbar. te xam xam-xam bu ma yàlla may la. bu si dimbali doomu aadama rek damaa nomba nomba nomba ba ñëpp jàpp man nopp rek laay liggéey la <laughs> wax nga dëgg de ndax ñi may woo naan ma sëñ bi jox ma numéro sëriñ Fallou xaw ma ñaata la ba ñi may waxee sax am nañ appel ki ma gën a soxla nag mhm. mooy ki nga xamante ni daa wër di nopp mhm. ba sonn mhm. la ilaha illallah preuve mooy tax dama naan la avance boo gisee résultat nga moo tabi man ngaa gis sëriñ bu def loolu mosuma koo gis wax dëgg yàlla nag man dama koy def ngir wóor li may def la ilaha illallah noonu yi moo laaj loolu mm-hmm. sëy yi am nañ problème mm-hmm. relation yi am nañ problème mm-hmm. waaye man képp koo xamante si da ngaa bëgg am yéene ko wala nga nekk sa jëkkër wala nga nekk sa soxna nga bëgg seen diggante gën jamono ji ku bëri wu ñu daan sa dëgg la te damay wax ni sëy yi nañ leen di nopp. Mhm. jigéen ñi nay nopp seen i jëkkër. Mhm. ngir ñu bëgg leen. Mhm. góor ñi nay nopp seen i soxna ngir ñu bëgg leen. ndax maanaam diggante yooyu li fi nekk dafa am dafa dafa bëri. muy lan. jafe-jafe yi fi nekk. muy lan. ba bañeeli ci biir. ñi ànd ñi ànduñ ci di xeex. léeg-léeg say mbokk goro duñ la bëgg léeg-léeg say njëkk duñ bëgg léeg-léeg sax say mbokk jabar duñ la bëgg. moo tax ma ne ab sëy dañ koy nopp. wala léeg-léeg nga borom kër wala nga am jabar kenn ku ci nekk yor xaalis di jox moroom